Euh, Seydina Seydina Alioune Ndiaye ndax dafa dafa ci lan lay yëngu. waaw Abdou man moom bu weesoo li may tagg yonent bi sallallahu sallam nga xamante ne mënoon naa ci yem rek waaye nag bëgguma di xëy di toog di xaar programme yaakaar naa ne ci li ñuy yëngu mën nañ ne sax bari na waaye li ci gën a siiw mooy taabal bi ñu am suñu buntu kër nga xamante ne fa lu ñuy jaayee kafe ataaya meew waaw ak jinjeer yooyu noonu yi nga xamante ne baax na loolu gars yi ma koy laaj chaque jour. waaw yooyu noonu yaakaar naa ne ci loolu la ñuy gën a yëngu. da waaw damay def yooyu. kon eh, yow eh. ku ku amoon mariage ataaya dama la koy ñëw serviral ah. waaw bu ko boo bëggee ma ñëw serviral la bu ngoonee ma dem sol garamb bu ñëw wayal la. ci Médinatul Rasoul lépp fii lay xewee ci Médina TV ànd ak yéen ci seen émission Médinatul Rasoul.